asalaamaaleykum Tambacounda. am naa mbégte ñëw fii ci tàmba ah muy dëkk bu mag di dëkku culture di patrimoine pour Sénégal ñun nag sunu yéene ci Sénégal ak ci Tambacounda wax naa ko dégg ngeen ko ci programme bu am solo muy nit ak naataange Tambacounda Kédougou nekk na ñaari région yoo xam ni ñoo gën a ñàkk ci Sénégal le taux de pauvreté à Tambacounda et de plus de 60 pour cent Kédougou encore c'est pire loolu nag ñu jàpp ne jaaduwul Tambacounda ak Kédougou minerai yu ëpp ci Sénégal fii lañ koy fekk boo jëlee fer bi dans la Falémé nga jël marbre bi le marbre d'Ibel nga xam ne ñun dañuy jéggaani dem ba ay réewu tubaab di wuti marbre di ko andi marbre wu di verre bi mën nañ ko jël exploité ko mu amal waa Sénégal njariñ or fii ci Kédougou ak Tambacounda nekk na loo xam ne war nañ ko gën a mën a utiliser ci fer bi war nañu mën a créer ay industrie de la métallurgie et de la sidérurgie dans la Falémé pour transformer nos matières premières sama ambition mooy reprendre le chemin de fer du fi nekk rek mais ñu créer chemin de fer bu mucc ayib li réewu tubaab yi am ci transport ferroviaire ñu andi ko Tambacounda xam ngeen ni ëpp la bëgg nañu dans les cinq prochaines années ou dans les dix prochaines années Sénégal inaugurer son premier train à grande vitesse et loolu mën na nekk leneen li mooy ci en termes de potentialité économique yéen ñëpp xam ngeen ne Tanzanie ak Kenya ñooy pays africain yi nga xam ne fa la tourisme ëppee nit ñi dañuy dem ci parc yi tubaab yi di ci ñëw waa Afrique di ci ñëw waa asi di ci ñëw ñun nag fii ci Sénégal ñu am lu toll ni parc Niokolo-Koba te defuñu ci benn investissement li ma bëgg mooy ñu gën a développer le tourisme ci Niokolo-Koba daal di repeupler li nga xam ne moo fa nekk ci ay animaux ñu andiwaat ay animaux yu bees organiser ay circuits touristiques pour gën a développer tourisme dans la région de Kédougou les chutes de Dundifelo loolu patrimoine la war nañ ko gën a mën a développer ba nga xam ne dinañ développer tourisme ci zone boobu mooy tourisme boo xam ne nit ñi dinañu ñëw andi koom-koom xale yi nekk fii mën ci am liggéey